parce que euh, bi Sénégal waree euh, football final mook euh, mook Égypte dañ fee ñëwoon mu ne combat boobu noonu tant que li Nicolas ñëwul ma jox ko sarax combat boobu du am te loolu yaakaar naa ne def na presque un mois moom moo ñu ko waxoon dikkaat naa ci mama waaw di sant yàlla julli si yonent bi suñu borom moo ma woon Luc Nicolaï ñëw ba ci buntu kër gi. Mm-hmm. gaare otoom am lu mu lu ma jox man loxoom ak sama loxo Luc Nicolaï duggul ci biir kër gi. Mm-hmm. Ah, ma woo ko woo Bécaye Mbaye ne ko dafa am lu ma bëgg a wax Luc Nicolaï ndax saa yu tëggee combat combat bi du yegg. Mhm. te bi yoon sarax bi ci kàttanu yàlla yonent bi man Selbé maa ko yor ndax mbër mi war a am ndam man maa ko jox caabi ne ma combat bi du am de dina am. Luc Nicolaï bu ñëwoon suba wala tey. jox ma li ma warloo ak moom li nga xam ne moo téye kombaa bi da koy tëgg. kon bu ñu say wax mu ne jàpp ne combat bi yow yaa ko téye Ah, ginnaaw yàlla yonent bi ci man la ko yàlla jaarale ndax wax naa ko Luc Nicolaï mhm. Bécaye Mbaye laa ko njëkk a wax mu ne ma Luc Nicolaï dina fi ñëw Luc Nicolaï ñëw fa ma wowoon Bécaye Mbaye mu ne ma Luc Nicolaï mi ngi nii. Mhm. mais ba léegi jotagoo Luc. mu jot naa Luc même même jour ne ko dag maa war a indil nangam. mais moom après la la la wax. ah mu ne ma waaw. Mhm. ma ne ko ngir yàlla. ngir yàlla ak yonent bi Luc góorgóorlu. ah xëy na dafa foog ne samay wax ay fola la. la ko jàppee. mais am naa yaakaar li ko linkulaay bu deful sarax boobu mm-hmm. xanaa ma gis Ama Balde ak Modou Lo sëgg rek. mais mais combat boobu da. tànk Modou Lo mais tànk li linkulaay génnewul sarax bi. ah man gisuma ko gëwuma ko de ah yàlla nag mën na lépp. parce que maman ah, maman combat boobu àdduna moo koy xaar. si si loolu ci Luc Nicolaï rek. bu fekkee ci yow la nekk est-ce que ko bàyyil ñu seetaan ko parce que combat boobu koo bàyyi parce que dafa am lu tax lu ko waral lu Luc Nicolaï war maa jox man. man maa war a def sarax bi ñaata combat ñoo fi am waxuma lii bi ma ko dalee wax dafa yàgg Luc Nicolaï moo war a gaare otom fii sama buntu kër man ki ma gis Luc Nicolaï la moo gaare otom sama buntu kër am lu mu ma jox pour ma war ko saraxeel taalibe yi du moom moo koy saraxe du keneen na koy saraxe man Selbé Ndom maa yore combat Ama Baldé ak ak Modou ndax ki war a daan maa ko jox caabi ci. kan moo war a daan ba mu moo war a daan ba ci kanam incha allah. yaa daan ko nag am naa ci quatorze ans. Mhm. munoo maa nax ba ma wax ko. mais dañ ciy comme ne nga xam kii daan ba aussi tamit yaa nekk nga xamante ne yow yaa téye combat gis naa leen ñaari camp gis naa leen. kan moo gën a jekk. gis naa camp wu euh, Ama mhm. mais maman ndax ba ma wax la kii. waaw <laughs> ah, aussi maman tamit gis nañ ne euh, am na ay maaraay yu génn ne combat bi tax warul am dafa am benn mbër bi nga xamante ni tant que bàyyiwul gàllaajam bi muy def combat boobu doo am. darajay laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi man 2009 laa commencé wax 2012 nit ñi xam ma man kese ci seetkat fii ki senegal muy góor di jigéen maa fi wax ne bisu sàngam deret dina tuur mu am maa fi wax ni mbër mi boor bii lay daane maa wax mboor mi mbër bii kaaw day am loolu la yàlla def du ma tiitaru nag du ma beew du ma yëkkati loxo ne maa fi man waaye day ñi yàlla may ci senegal ku ñu wàññi di nga wàññaale jigéen ji may seen jigéen waaye li ma wax moom incha allahu rabbi maanaam du dañ. mais aussi tamit ah, comme ni nga ko waxee amaana beneen affiche bi nga xamante ne àdduna moom lay xaar mi Bombardier Eumeu Sène mais maman ba combat boobu dina am. waaw waaw boobu nag wax dëgg yàlla mënu ko maa wax ne gis naa ci wala gisagu ma ko. Mhm. gisagu ma ko. mais am nga yaakaar que ni kon. Ah, bien sûr day am kay incha allah day am day am day am xanaa xamoon Luc Nicolaï li tax mënut a tëgg làmb du ci Ama Baldé du ci Modou mais si nekkul coow li non non moom ci boppam moo mënta def lu yegg. fa mu ci boppam nee naa ko na jóg ci boppam man aw ma ci dara promoteur yëpp Sénégal lañ dëkk. Mm-hmm. ah da nga jaakaar que ni li Nicolas fépp fi nga xamante ni war na fa dem demu fa. absolument parce que ba ma ko waxee ba tey heure war naa fekk combat bi pare mais moom ci boppam nanguwul joxe li ma ko wax. te man si yàlla mi may jox lu ëpp loolu. Mm-hmm. démb rek nagu neuf cent cinquante mille laa laa def sarax. Mm-hmm. nagu neuf cent cinquante mille moom laa def sarax démb. kon maanaam maanaam maanaam ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañ kër gi nga toog mhm. seet boobu moo ma ko may gis boobu may gis mhm. di ko wax te maanaam mhm. lig Nikolaay war naa xam Selbé moom c'est mon frère keroog ba ñuy Balla Gaye ak ak euh, Yékini ba ñuy def jàkkaarloo mu të def jàkkaarloo mu të def jàkkaarloo mu ca biir làng ga lañu mujjee def ñoom ñaar seen euh, jàkkaarloo am na fa ab xale bu jigéen bu taxaw carrément ne ko Euh, Luc Nicolaï Selbe nee na Balla day doon day day day daan Yékini keroog damaa woo journaliste bi ne lu tax ngay wax foofu loolu combat bi dafa amee tension Luc Nicolaï affaire am moo nekkul affaire bu ndaw faaw moom ci boppam mu jël matuwaayam balaa mu tëgg combat na ko xool parce que jàpp dat mu seey nga jàppaat dat mu seey face à ay at maanaam loolu baaxul moom ci boppam moo war a xam li mu bëgg man nag wax dëgg yàlla alal nit léegi ni ko laay taxumaa dund. Mm-hmm. da di suma frère ma gis ni mu sonne ci làmp yàlla boole ma ak moom moo tax. Mm-hmm. waaw loolu moom vraiment. Mm-hmm. ah bu ko deful. Ah, xam nga dafay dafa dëgër bopp commencé woon naa naan làmp ji dañ koy tëgg gis nga. après sarax boobu moo ko téye. su ko defee bu làmp ji amul. ma xàcc dootuma wax ci camera dañ ma bi brigade de recherche mm-hmm. non dañ ma plainte ci le procureur général Bassirou Gueye mm-hmm. xëy na dañoo yaakaaroon ne foofu mooy gën a gaaw pour ñu tëj ma kasu ñoom ñu am ndam mm-hmm. ah su ma rakk jooju da doon waat mu ne dina tëj Selbé Ndom ay journaliste di ma woo naan ma diw nee na dina la tëj ah bon mu ne waaw moo ko amul problème xam li ba xam ci la ma maam li maamul Mahdi feeñu dama Selbé Ndom demal ci géej gi dama sangu ci géej gi lu waaye mënul ci géej du ko mën ci yow. deux heures moins du matin laa ànd ak benn chauffeur bu ñu naan aas ndaw. Mm-hmm. moom ma yóbbu Malika. ma dugg ci géej gi ne maam li mu def. Mm-hmm. barakati laa ilaha muhammadu rasulullah noonu laa def. Mm-hmm. dama sangu wiccaxu ndox mi génn. Ah, ma dem brigade de recherche commandant bi fekk brigade de recherche fi la ñuy gaare seen oto. sama doomu baayu doom yi nga xam ne seen ñaari pàppa ñoo bokk ndey ak baay vie mbaay ci man la nekkoon daal génn gis gaa yi na ko ana mère Selbé mbaa dawul mu ne leen daw mère bi lu muy daw daa rey nit wala def sàcc léegi mu daal yéeg fëgg man ne ma waa brigade de recherche ngi nii man ko gis naa ko bu yàgg ba ma def sarax gis naa ko bu yàgg ci laa wàcc dem fekki leen nuyu ko ki yore plainte bi mhm. mu fay ma daal di téye na ma ah gars yi dañ laa soxore rek amul problème mhm. xam nañ lépp moom mi la andi plainte yi moom moo la wax plainte moom barke laa ilaha illa allahu li ma ziare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma gars yi dañ laa soxore jaar nga fa ah, ku tedd kii di maam ni maamu déggoo li ma la maam ginnaaw yàlla yonent bi ak Serigne Touba mhm. maam li maamu laay ma feeñu ne ma sel bi duggal ci géej gi nga sangu mhm. bi ma demee wuy ji convocation ba may dem dama lu yëpp 4 sol garambu bu fanweeri junni bu cuub mhm. parfum ba ba jekk mhm. dem commande bi li ma laaj ma ne ko kenn du laaje noonu danga may laaj affaire bi fu mu commencé ma wax la fu mu commencé bi ma waxee commande am pare dafa jooy commande naa ci boppam ne ma ñii dañ la bàyyi. Mm-hmm. daal dina ma taxawal toogal fee ma woo euh, euh, Basirou Gueye. Mm-hmm. mu woo na ko bàyyi ko mu dem. kon maam li maamu. Mm-hmm. ki taxaw ne géej gi randul. waa baleine yi ci géej gi. lan moo leen xamloo jour appel maam li maamul di baleine yiy génn di fee di génn. kiimtaan yu ne dafa génn yenn saa yi Serigne Touba génn fa mhm. no maam li maamu wax dëgg yàlla mhm. bëgg naa ko mhm. alors ñu gis que ni euh, ay at a nii ci ginnaaw ñoom euh, appel bi amul euh, aussi tamit bu mu amee koo dem dangay gis ci moom mbégte bi nga xamante ni moom yàggu na bëgg mu nekk mbégte bi nga xamante ni ñu ngi ci ñoom waaw parce que li ñu am ñoom xam nañ ko xëy na ñun ñëpp laa ilaha illallah lañuy dunde mais démb rek maa ngi wax naan euh, waa Laayeen yi dañoo bëgg a gañee ndax ñoom ñu naan laay laay laay maxtaar maanaam ñu ñëpp ay laay laay lañu képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ak laay laay nga ñu ko ñu ko waxul sax ay laay laay lañu ndax yàlla moo ñu bind ñoom dañoo fonk yàlla màggal ko ba tax ñu naan laay laay di kontaan ci appel bi am ah, ndog mi amoon ci réew mi rek a tax mais laay ne ñëpp leen jox respect ndax kenn du leen dégg ci dara vraiment xulowuñu xeexuñu et puis macha allah surtout yu weex yi ñuy sol nii wu neex na ma am naa ci benn rakk Oumy Ba membre la ci daayira yi macha allah ci kër sëriñ bi lay nekk dafa gëm waaw ngëm te rek am solo di ziar di leen ñaanal di ñaanal suñu bopp ñu yàgg a ay appel wax dëgg yàlla di yàgg a fekke ay appel man dama daan dem kër biram ñing falaa doon kii defee appel mais ak day xat pour ma génn man kese du ma mën dem day xat ci man ndax nitu mbooloo nga dugg ci biir mbooloo day metti moo tax mais sama xol yëpp mu ngi foofu. comme ni nga ko waxee moom nee na euh, xolam yëpp mi ngi fee ca yoof euh, duñ def rek lu dul duggaat fi nga xamante ni euh, soxla woon nañ sax maman Selbé waxtaan nekk ci moom mi combat bi nga xamante ni moom la àdduna doon xaar euh, mu nekkoon combat Ama Baldé ak Modou ñu dem euh, ba ci biir ñu reporté combat bi maire ndax nga gisee report bi nga xam ni. sa wax des na de daa am boo ñëwee fii daa am lu ma la waxoon. kon dañ fay dellu comme ni mu ko waxee woon rek.